tey bésu alarba ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février miñ nekk ministère de la santé de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waajalim ci ñaari junni ak ñeent fukki test yi ñu def ñaar téeméer ak fukk ak benn ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci juróom-ñaar fukk ak juróom ka contact mooy ñi xam ne jot nañ ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jógee bitim réew waaye am nañ ci téeméer ak fanweer ak juróom-benn ñu tuddee cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñ fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll ñooñu nag seen lim ni la tëddee ci ndakaaru ak li ko wër am nañ ci juróom-ñaar fukk ak ñett ñi nga xam ne ñoom ñoo am doomu jàngoro ji seen lim tëddee nii ci gox yi juróom-ñaar ci almadi ñeent ci wookaam Dakar Plateau ak Diamniadio ñett ci Fann Résidence Mariste Yoff Ouest ak Rufisque ñaar ci Liberté 6 Amitié 2 Médina Mermoz Sud Foire Guédiawaye Kër ak Sangalkam benn ci Colobane Centenaire Liberté 1 HLM Fass Grand Dakar ñaari tali Sicap Baobab HLM gi Biagui Zac Mbao Niag Yeumbeul Cité Batrin Cité Keur Gorgui Sacré-Cœur 2 Nord Foire Sicap Foire Parcelles Assainies HLM Grand Yoff Bambilor Niag ak Wakhinane ci yeneen région yi am nañ ci juróom-benn fukk ak ñett cas communautaire tëddee nii ci gox yi may waaj a fukk ak ñeent ci Thiès juróom ci mbuur ak Richard Toll ñett ci Kaolack Kédougou Saly Saint-Louis ak Sokone ñaar ci Fatick Koki Louga Passy Pout Sakal ak benn ci Bignona jaxaw Goudiri Kolda Matam Mékhé Popenguine ak Vélingara téeméer ak juróom-ñeent si malade yi ñu entrée woon ak ñi xam ne ñu topp ñu leen doon topp ci biir kër yi wéer nañu bës ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee juróom fukk ak ñett malade ñoo nekk réanimation juróom ñetti malade ñàkk nañ seen bakkan bu su démb talaata ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak ñi xam ne ñuy leen topp ci biir kër yi ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wëññi na fanweeri junni ak ñett ak ñeent téeméer ak juróom fukk ak ñett ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar fukki junni ak juróom-ñaar ak juróom-ñett téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett wér nañ si juróom téeméer ak ñeent ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñeent junni ak juróom-ñaar téeméer ak fukk ak juróom-ñeent ci lalu hôpital yi wala malade yi nga xam ne ñu leen topp ci biir kër yi